kenn ku nekk sa Facebook nag ngay defee héritage sa Facebook waaye daal ñu ne bu ñu ko teglee ñetti fan yi di wax ci loo xam ne daa jëm wàllum moom <laughs> ñu sant Kébé ak Cissé moytul <laughs> dinañ quitté moo tax ñu ne nañ ko bàyyi ba jëmmi jamono comme def nañ bu Google bi wane kenn ku def sa compte Google na ngay defee kanet doon ko ah, léegi compte Facebook après dañ ko def peut-être xëy na euh, dafa am vidéo yu ñu bëgg a def nag ci euh, monétisation doxale ko ci diggante ko wax nañ ci dee tuuti ñu wax ci xaalis tuuti nag ba gars yi kontaan tuuti léegi après ñu soog a demande rek ci Facebook wan leen héritage euh, incha allah rabbi compte Facebook at AdSense yi fi ñëw euh, bëriwul tuuti courrier la euh, courrier na xam naa daa xaw a yàgg ci yoon bi courrier yu courrier boobu yu sant sant kebe la gis nga boo xoolee gis nga waaw gis nga courrier yi baax presque ay tâches yu bari moo ci nekk voilà mu ngoog léegi nag am na nu ma doon def mooy dama doon euh, teg courrier yi fan yi yi ma mujj defee noonu laa koy damay teg courrier yi filmer courrier yi di tegg benn benn di wax waaw léegi nag dama ko bëgg arrêté système boobu parce que dafa am benn si communauté bi bu def commentaire ci vidéo courrier yi mu mujj def wax ma ne ma Euh, est-ce que numéro yi soo mënoon fex muy bañ a génn daal du gën ah, ma ne ko effectivement loolu de wax nga dëgg ba bàyyi woo ci woon xel mais <laughs> xalaat bu rafet la. voilà parce que tamit xam nga wane courrier wane wax nit ku turam ak numéro téléphone bi affiché te information personnelle la quoi voilà du confidentiel mais personnel la voilà. Euh, léegi ma xalaat ni kon naa def version yi ma doon njëkk a def dama doon génn nii man téye courrier yi di wax ñi courrier yi ñëw ce qui fait que courrier yi duñ numéro ci dégg sa tur xam sa courrier ñëw la léegi même soo la ñuy defaat tey rek. bu dégg sa tur nga am sa courrier ñëw na jaru ngay xaar ma contacté la mun nga ma contacté du ñàkk nag xam naa dinaa am courrier yoo xam ay lay nekk parce que courrier yi moom weer yu yàgg yi après di ñëw day bëri ay répétition loolu mooy mooy problème bi ci am te dafa toogoon lu mat lu ma war a mat ay 4 mois yoo xam courrier ñëwuloon moo tax courrier comme ay ay répétition léegi euh, courrier bi ci jiitu mooy euh, Sitor Sarr di nga moom dèjà xam naa ci répétition yi lay bokk <laughs> ak euh, Modou Ndiaye Maron moom tam ci répétition yi sûrement lay war a bokk ak euh, Modou Gueye ak euh, Ibrahima Lo ak euh, Awa ak xalifa Babacar juuf ak Modou njaay gay waa jeex na si Tor Sarr daal ñëwaat waaw kon jeex na ñooñ mooy ñi nga xamante ni seen courrier ñëw na fi tey waaw léegi après ku ci dégg sa tur te fekk validé woo sa AdSense mën nga mu contacter ku ci validé ba pare waaw du ko jar parce mooy AdSense bi validé wu ba nga mën a encaisser sa xaalis waaw loolu moo ci am solo euh, xam naa nag euh, dinañ commencer semaine bi euh, suba sax lañ koy commencer semaine suba incha allah rabbi commencer def benn playlist boo xam ne dañ ko bëgg a créer comme ni ñu defoon playlist bu def YouTube studio da à Z commencé waat YouTube à zéro ba fi ngay eggee ci war a demander monétisation. Euh, dinañ def nag vidéo boo xam ci wàllum monétisation kese la maanaam nekkul demande de monétisation déedéet mais expliquer nit ñi comprendre monétisation ci AdSense yëpp lan la ñu expliquer ko ci biir YouTube bi parti ñu la defal mooy xam nga ci biir YouTube am na fu ñu la defal YouTube studio dollar bi ak euh, monétisation soo cliquer dañ leen génneel information information yi lañ bëgg ñëw expliquer ko ba nit ñi comprendre ko secteur par secteur monétisation pure et ñëw ci monétisation bi nga xam mooy souscription ñuy abonné sa canal loolu am na ak monétisation merchandising mooy na ngay def bay jaay ay produits ci sa YouTube euh, ak euh, beneen bi nga xam mooy super chat super sticker yooyu yëpp nag étape par étape ñu wane ko ba pare faram fàcce ko ba pare lu si wane nekk ñu wane nu ñu koy activer pour nit ñi mën koo comprendre bu baax waaw. xam naa incha allah rabi loolu daal mooy nekk moom prochaine vidéo yi ñuy dugal ñu commencé suba lañ koy commencé yooyu la ñuy def. léegi bu loolu après dinañ ñëw nag ci AdSense ci biir AdSense si boppam ñu dugg ci AdSense nag expliquer point par point fépp ci AdSense onglet bu nekk rek boo cliqué li fay génn ñu expliqué ko ba nit ñi gën a comprendre seen compte AdSense yi loolu tax ñu koy def parce que bëri ay questions yu ñëw yoo xam ni toujours ci ay yenn sew-sew yi nekk ci biir YouTube loolu AdSense yoo xam ni nekkul lu ñu def vidéo te doo te te te day dafay jafe des fois expliqué ko parce que explication audio cassé bokkul ak nga wane di def waaw wane def moo gën a pratique te bu ñu sañoon ñun lépp dañ koy expliqué wane ko ce qui question yi di wàññeeku si jëm si ñun voilà loolu daal mooy li bëgg nañ ko def mooy projet bi fi mu nekk nii incha allahu rabbi léegi en parlant de de explication ak ak li nga xam ni mooy ñuy contacter xam nga whatsapp bi la ñuy utiliser souvent des fois nit utiliser commentaire yi poser question léeg-léeg bu ñu gisee commentaire ñu tontu ko ci commentaire yi voilà mais question commentaire yi moom du tax mu technique noonu parce que question écriture léeg-léeg li nga bëgg a wax lépp doo si mën a wax waaw nit ki li mu mën a wax si làmmiñam nii jàkkaarloo nga nit expliquer ko du bokk ak su koy bind sa bind dafa limité bind dafa dafa limité loolu la euh, léegi nag ba tax na ñu si bëri dañuy seetaan benn vidéo rek. gis sama numéro ci YouTube bi après bëgg ma woo téléphone wala bëgg ma envoyé message WhatsApp te du noonu parce que WhatsApp bi désormais sax léegi dañ ko bëgg nag maasale jël au sérieux que léegi-léeg xanaa lenn ku may envoyé WhatsApp te nekk sa premier message WhatsApp la moom dinaa la répondre voilà mais boo la répondre boo amaatee yeneen message bu il faut li envoyé 1000 francs parce que noonu la ko bëgg a doxal sinon du dem comme la ma waxoon bu njëkk ba ma koy teg règlement boobu rek su ma bëggee continuer di répondre ñëpp WhatsApp du ma liggéey te mënu ma tontu ñi bàyyi ñi kon il faut ñu réglementé ko ñu ngi jaral ñu dugal 1000 francs jël seen temps poser li ñu bëgg a poser yëpp ñun tam ñu jël suñu temps répondre leen li ñu leen war a répondre lépp loolu yaakaar naa moom dina mën a nekk. Euh, beneen affaire bi mooy euh, comme ku seetaan ku yem ci canal YouTube bi seetaan benn vidéo wala ñaar wala ñet balaa ngay poser question nga bañ a yem foofu nga def seetaan yeneen vidéo yi waaw parce que euh, gis naa ni maanaam téeméeri question yu ñu ma posé juróom-ñeent fukki dama kaa wax ba ay vidéo waaw. ay benn benn yu sew sant yenn yu technique rek laa nekk waxuma ko ci vidéo ñu mu laaj ma ko mais quatre-vingt-dix-neuf pour cent moom lu ñu wax ci ay vidéo ba pare la après ñëw posé waat ma ko question léegi-léegi xam nga nit ki lay posé question moom question moom rek la xam moom posé na la question defe na ni moom dong mu ne moo la posé question te du xam ni am na ñeneen ñu def ni moom su ma jëlee sama temps ñoom ñëpp kenn ku ne ma bëgg expliqué la ba mu leer sa question wala nga woo ma téléphone téléphone nag moom sax moom si moom xam naa moom damaa jël décision fi mu ne nii pour léegi nit woo ma téléphone expliqué la dara du jafe la. parce que dama ko doon def mais dem naa ba gis nii loolu mënut a nekk parce que tamit da ngay nekk sa digg liggéey nit woo la laaj la benn affaire boo xam ne wax ko ci vidéo depuis 6 mois ci ginnaaw mu mu wool di la ko laaj. léegi euh, da ngay obligé ne ko non defoon naa ci vidéo nga dem nga recherche vidéo sàngam nangam ak et cetera léeg-léeg nga soo xam day bëgg a insister quoi mel ni daal maam réponse bi da nga kaa répondre par la force te fekk na <laughs> yaa xayti nag du noonu affaire itam léeg-léeg da ngay utiliser sa xel di imaginer tout def ci baax voilà. parce que tamit dañoo jël suñu temps li ñu xam ci YouTube ñu si góor góor di ci def ay vidéo pour ñeneen xam ko mën ko di def kon léegi boo yow bu fekkee da nga ciy dugg loo ci xamul li gën mooy nga seetaan vidéo yi ba pare. bu la vidéo bi yàgg na bu la bay seetaanal yëpp parce que xam bu yàgg ni mu doon doxee xam tey ni muy doxee mooy tax nga xam changement bi ñu ci def mooy tax nga ëllëg bu amaatee changement doo réer léegi-léegi nit day toog weer dugg YouTube mu duggaat YouTube am ay changement mu réer def ay capture di ma ah, waaye dama lii damaa gis ñu bind fii lii fekk na bu dafa topp lu njëkkee bu ko doon topp bu toppoon lu njëkkee processus su changement yi du la jaaxal day nekk loo xam lu naturellement loo dugg rek bu changé koy xam voilà mais nag euh, euh, affaire sénégalais moo ñu jàpp léegi-léegi am sénégalais daal bëgg na am xam-xam waaye toog fa di di jàng xam-xam bi loolu lañ yàkkamti voilà te fépp la nag boo demee léegi boo jëlee ay menuisier léegi mu lay defaral dara si loo am ci bant la jëm bu defaree ba pare doo ci gis finition bu set lu tax bi ñu koy jàngal métier bi toogu fa ba mokk rumbux ñu soog ko benn waaw mécanicien bi noonu dafa toog ba mokk rumbax te loolu problème lay posé bu yàggee lu mu indi kenn ko ne dina am loo mën a def mais doo ko mën a def def bi ci war voilà léegi nag bu dee yow YouTube dala intéressé daal li ma lay conseillé jëlal sa temps vidéo yi nga koy seetaan waaw li ma waxoon waaja rek dama posé woon question am pose question ma posé woon ci YouTube ma ne daal li ma wóor mooy leen soo jëlee sa temps dugg ci comme euh, canal Galsen Tube bi nga seetaan vidéo yi ba pare nga teewlu leen ma ne ko boo ko defee pare bu la neex dootoo posé kenn question yi ñu war def ci YouTube bi nga ko xam voilà lu simple compliqué léegi nag jël sa temps boobu di seetaan nag moom la am ñoom mënuñu ko parce que patience tam daa yombul looy xeex sa bopp la pour am ko concentré wu ci benn affaire loolu léeg-léeg yàkkamti moo lay dugg yàkkamti googu nag mooy yàqal yu bari ba lu nekk duñ fa toog jàng ko ba mokk waaw te boo bëggee nekk youtube ba dëggantaan wala nga bëgg xam ci youtube tamit li nga xam ne ñun xam nañ ko seeg néew di ko partagé ah nga déglu ko su fekkee xamoo ko defee nga xam ko bu ko defee di nga dem sax ba mën a ne ñun xamaguñ ko nga mën a ñëw baaxee ñu ko noonu la parce que àdduna échange la tamit voilà boo xoolee communauté Galsen Tube muy groupe whatsapp bi échange lañ fay def man man dama fay jànge keneen dafay jànge parce que ku fa dugal question rek dina am ci communauté ko ko xam dina ñëw dina répondre voilà léegi nag su fekkee nag question yi bëggoo di envoyé 1000 francs communauté Galsen Tube ngay dem dugg soo duggee ci communauté Galsen Tube muy groupe whatsapp bi moom adhésion 1000 francs la benn yoon par at ñu dugg ci groupe bi ñëpp am nañ droit question bu ñu mënti am si YouTube ñu dugal ko ci groupe bi membre bu ci xam dara rek ñëw répondre ça fait entre at bu am solo moo fa am voilà ak yeneen programme yoo xam ni waaw ku ci ku ci duggul duñ la ko wax ay programme yoo xam ne ay secret yoo am ci biir groupe bi la yoo xam ni xam naa di nga ne dama bëgg nga dugg ci groupe bien sûr dama bëgg nga dugg ci groupe parce que bu dee nga groupe bi sa njëriñ la parce que groupe bi li ñu def yëpp youtubeur yëpp la amal njëriñ waaw ah, moo tax bu dee duggagoo maa ngi lay conseillé euh, suufu vidéo bi administrateur yi nga xam ñoo yor loolu ñoo dugalaat ci groupe bi de wax na conditions yi règlement yi seeni ay numéro dinaa ko def ci suuf vidéo bi bu ko defee boo demee xool leen ci contacter xam naa nga bàyyi ba ba janvier moo gën tam parce que comme ñu ngi décembre ba janvier mois de janvier nga joxaat 1000 francs bu ñu yóbbal at jeex loolu mooy adhésion bi 1000 francs 1000 francs yooyu ordinateur yi nga gis léeg-léeg ñu def vidéo di ko tiire kenn gañe ko

YouTube dañuy 1000 francs bi dañuy joxe 1000 francs soo ko posé seen question am ñoo xam nag jaarul leen dara léegi-léegi dañuy <laughs> may envoyé WhatsApp réponse automatique bi ñëw nga am na ko ko mos a def envoyé ma <laughs> message WhatsApp xam damaa def répondeur automatique répondeur automatique bi tontu ko ne ko non da ngay envoyé 1000 francs pour ñu soog laa tontu mu daan da ngay da ngay da ngay fayee ko ndekete <laughs> damay fayee kay parce que da ngaa bàyyi YouTube bi nga xam ne amul fay ñëw ci WhatsApp bi bien sûr da ngay fay maa ngi leen di remercier ci seetaan bi nga doon seetaan vidéo bi di jox rendez-vous ba suba ci vidéo yi nga xam ne mooy vidéo monétisation YouTube yi incha allah rabbi ngeen jëf.